gan gi Mamadou Sy Albert euh, journaliste analyste politique doyen ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay dalal la ci matinalu réew mi FM tey ngir waxtaane euh, actualité bi bokk na ci manifestation bi société civile bi woote tey ji ci ngoon ngir ñaawlu euh, xaalis bi ñu waroon toppatoowee mbas mi ak lu ca aju. te cour des comptes wane ci ay luubal yu doy waar alors euh, tey euh, lan la manifestation bi mën a jur ak ba fan la mun a àgg. waaw lu mu mën jur moom lu njëkk mooy que société civile Sénégal taxaw na daan na taxaw lu bari ci wàllum xeexu droit de l'homme bonne gouvernance euh, bu taxawee day wone aussi que mu ngi fii ba léegi yëkkati na baaxam nag woote na mobilisation pour. wane moom euh, métitam wone aussi que dañu bëgg gouvernement bi leeral euh, rapport euh, cour de contrôle bi mu am mu am suite hmm. donc loolu moom taxawaay société civile la ndaxte contre pouvoir la moom lu muy dox mooy bonne gouvernance respect des institutions ak yu demee noonu hmm. ñaareelu taxawaay bi nag mooy est-ce que am nañu doole pour gunge euh, rapport bi ba mu àgg fu mu war a comme ni ñoom ko bëggee. Hmm. loolu moom xam naa ne euh, jafe-jafe moo nekk seen kanam est-ce que am ñu doole boobu est-ce que am nañu kattan boobu. Hmm. est-ce que am nañu influence boobu. lu wóor ba wóor moom lu ñu wax sénégalais yi ànd nañ ci. Hmm. xëy na tey jii sénégalais yi dinañu mobiliser nekk ci gannaaw société civile bi. léegi nag luy des mooy ban pexe la am. pour maintenir pression bi justice bi mën a euh, wax lu mu war a wax ci ci rapport boobu. Mhm. alors euh, société civile bi tey euh, lan la mun a aussi jural euh, état bi ci manifestation bi ci kanam bitim réew ak yeneen partenaires yi ndaxte xam ñu ne du Sénégalais yi dong ñoo cotisé woon ñu bëri ci ay partenaires Sénégal dugaloon nañu seen koppar foofu tamit mun nañ fa seen tout conséquence bu bàyyeekoo ci manifestation bi ñu woote tey. waaw loolu loolu Fatou lu am solo ndaxte boo gisee. jàppale société bu Sénégal rek euh, ci àdduna bi yëpp mm-hmm. seen doole yëpp ñu leen di financer mooy les bailleurs de fonds mm-hmm. euh, donc société civile dafa nekk partenaire muy euh, partenaire technique et financier Banque mondiale FMI même yeneen réew yi seen partenaire mm-hmm. seen tànk ak seen baat dafa ànd ak politique partenaire technique et financier Euh, loolu nag euh, exemple bi nga joxe nii Covid bi euh, wax nañu que budget bi mu ngi tolloon mille milliards te soo xayma partenaires yi lu ñuy joxe moo ëpp Sénégal di mu joxe. Mhm. donc de de partenaires yi xam naa ne daal même buñ ko waxul. Mhm. ànd nañu ak yuuxu société civile bi. ànd nañu aussi ci bonne gouvernance mhm. donc loolu société civile bi xam na loolu te. dina yokk seen doo doole ak seen daraja. Mhm. parce que partenaires yi loolu la ñu xaar ci société civile loolu moo tax ñu leen di financer. Mhm. pour ñu nekk contre pouvoir ñu mën a contrôler gouvernement bi contrôler euh, géewu politique bi règle yi am démocratie. Mhm. donc loolu ñoom loolu lañu ñu ah, mooy seen tànk société civile nag bu taxawee ci ta tànk boobu lu ñu mën a mooy ñu soutenir leen. même buñ ko waxul. ñoom loolu moo leen moo gën a daal seen xel ndaxte xaalis bu ñu dugal ci Sénégal ci mbas mi du seen xaalis seen xaalis askan la mm-hmm. euh, donc loolu euh, defe naa message boobu moom dina jàll bu baax a baax ci partenaires technique et financiers mm-hmm. est-ce que kon mm-hmm. est-ce que nag maintenant euh, partenaires techniques yi aussi bon xam nga ne ñoom dañuy soutenir si civile mais en même temps dañuy soutenir seen intérêt bëgguñu bëgguñu gouvernement bi ñu dal ko trop wala ñu déstabiliser réew mi. Mm-hmm. donc loolu euh, société civile bi aussi na ci bàyyi xel. Mm-hmm. na xeex jokkoo ak partenaires yi wane moom lu muy laaj mooy démocratie laajul instabilité. Mm-hmm. parce que partenaires yi ñoom instabilité la bañ. Mhm. alors bu weesoo société civile bi euh, politique yi itam danañu ci dugg ndax ëllëg concert de casserole la ñu mel ni Yewwi Askan Wi woote euh, ba tey ngir euh, ñaawlu lii di ni ñu yore koppar yi ñu waroon a topp toobee mbas mi ak luubal gi nu ci am. Euh, foofa itam euh, lan lañ ci mën a xaar comme njeextal. waaw concert yi moom dafa ànd ak ak manifestation bu civile. Hmm. Sénégal moo tëddee noonu suñu politique moo tëddee noonu boo booy fàttaliku 2011. Euh, hmm. société civile bi ni mu taxawee ba président Abdoulaye Wade dellu ci gannaaw. Hmm. génne projet de de de de réforme constitutionnelle société bi société civile dafa taxaw ànd ak acteur politiques yi. fi ñu toll ni deux mille vingt deux bi di jeex ni euh, dafa mel ni société civile bi li mu yëkkati acteur politique bi ànd nañ ci mm-hmm. donc concert euh, de casserole bi dafa ànd ak manifestation société bi ñoom ñoom ñëpp dañuy yuuxu pour mm-hmm. wane que yorinu réew mi euh, dalul seen xel que nguur gi li muy dox baaxul donc concert politique bi njeexital bi mooy wane euh, c'est askan bi que euh, nu ñu yore Sénégal euh, doyu leen que ñoom dañuy laaj changement. kon daal ñoom dañuy nar ñëw yokk ci xar mi karaw. Ah, waaw waaw mm-hmm. loolu mooy jeu politique. bien sûr contexte bi opposition bi xam na ne que kenn kontaanul ci rapport bi. Mm. kenn kontaanul ci yorinu gouvernement bi bon ñu ngi dem ci élection. contexte bi def favorable pour opposition bi lu mm. occasion la pour ñoom ñu ñu déglu leen pour aussi mobiliser seen électeur pour gën a taxaw Euh, mën a am euh, changement bu ñu bu ñuy wut. Mhm. alors contexte boobu nga wax itam tax nañu bari di am xel ñaar ci ndax ay daan dina am wala ndax gouvernement bi dina dem ba sës ci yëfi ni mu waree li ci gën a tey xel itam mooy euh, séance d'explication yi ñu gis ne ñoom gouvernement bi ñoo ngi ci gannaaw bi président waxee na premier ministre gis nañu ministre du budget et des finances ginnaaw gi Amadou Ba itam nee nañu daje na ak société civile bi daje ak yenn partenaire financiers yu Sénégal est-ce que tey dëgg-dëgg mën nañoo yaakaar ak pression. injonction bi ñu teg nii euh, que ni euh, suite judiciaire dina am maanaam dinañu topp ñu ñu war a topp ci euh, rapport bi. waaw mën nañu yaakaar mais mais vraiment yaakaar boobu dañ ko dañ ko war a dañ bon réyul trop ko. Mm. ndaxte gouvernement bi ni mu doxalee du tànk ku ku gouvernement bi nga xam ne dafa war a jébbal rapport bi justice. pourtant jox nañ ko ministre de la justice démb dañu ne. waaw mais seen doxalin gouvernement buy décider gis nga euh, corps de euh, corps mm-hmm. ci nguur gi la bokk. Mm-hmm. ñoom lu ñu lu ñu wax dafa leen wóor dañu def seen investigation def seen analyse déglu euh, ministre yi déglu cadre yi déglu ñëpp defal la rapport jox la. Mm-hmm. nga def sa observation ñu integre sa observation liggéey boobu pare na donc li nga xam ne lii pare na gouvernement waru ci woon laal. Hmm. léegi nag boo ko joxee justice bi mais su fekkante gouvernement bi àndu ci premier ministre àndu ci ban ban de la justice moo ñemee dugal gouvernement bi li nga xam ne lii premier ministre àndu ci président àndu ci amul benn justice bu ko mën a def fii hmm. suñu réew. Hmm. Euh, donc loolu moo tax euh, gouvernement bi dafa war a décider daal soit mu def lu mu daan def. comme président wax na euh, dafa teg euh, son coude sur les dossiers mm-hmm. bon mu teg ci ci coude mu jeex wala mu nangu kë bii ëpp na euh, nañ def poursuite administrative nañ def poursuite judiciaire bon loolu surtout man li ma lu tax ma ne la suite bi du du du du yomb noonu ñu ngi dem ci élection deux mille vingt et tuumaale ay ministre lañu ñii ay DG lañu ñii ay DAGE lañu et ñooñu ci APR lañu bokk wala ci Benno wala ñu jege président de la République président de la République aussi bon acteur politique la mënul euh, euh, sacrifier comme ça ses collaborateur loolu loolu aussi euh, bon xam naa ne Macky Sall moom yaakaar mu mu def ko mm-hmm. alors bu ko defulee lan moo ko ci mën a fekk ci wàllu politique yi léegi lan la mën a doon. mais conscience euh, conséquence bi mooy confiance xam nga lu ñuy wax ci débat politique bi nekk am na sa xalaat. Mhm. wante lu am ba am mooy que euh, sénégalais yi dañu dénk Macky nguur. Mhm. sénégalais yi bu ñu wóolatul ki ñu dénk mais loolu foo foo dem ci élection mënoo gagné. Euh, et je pense que euh, président ak ñi mu àndal nañu xam ne situation bi c'est vrai métti na mais confiance moo ko laaj hmm. euh, da nga war a def li nga war a def nga dem procédure administrative wala nga def procédure judiciaire nga gérer nga wane nit ñi que yow bugg nga nga mu leer et loolu defe naa su def demee ci en tout cas tant que leeral dina am confiance mais su demee tànk pour nëbb affaire bi protéger yi nga xam loolu mooy impunité mhm. et impunité baaxul baaxul ci président baaxul ci majorité baaxul sax suñu justice mhm. suñu wóolutul suñu justice loolu moo tax que euh, euh, problème bon am na mais aussi seen taxawaay nañ ko wone ba mu mot sëkk nit ñi mën a am confiance ci ñoom. Mhm. alors Ousmane Sonko am taxawaay weneen ci dossier bi ko bi dox digganteem ak Adji Sarr ndax plainte la wax ni lay dugal ngir euh, Mamour Diallo ak ñeneen ñi ñu tudd ñëpp ba ci aji Sarr jàpp ne dañoo lëkkaloo di def ñaaw ñaawteef muy association de malfaiteurs ak yeneen ak yeneen. ndax yaakaar nga li mu bu mu am ci ndam. waaw mën na ci am ndam ndax Sonko moom dossier bi mu commencé ba léegi wax nga ko mu ngi xeex euh, pour setal boppam mu ngi xeex aussi ak ñu muy tuddee compléto defe naa daal ci en tout cas sur lëpp ci wàllum politique. Hmm. Euh, am na ndam bu rëy ndaxte opinion bi li mu jàpp mooy dañ ko bëgg a xeex moom politiquement. Hmm. loolu ko bataille d'opinion boobu moom sonk am na ko lu koy firnde mooy euh, boo xoolee depuis affaire bi commencé mhm. moom moo gën a feeñ ci opposition mhm. ah, am na ay résultats yu baax ci local am na ci législative donc sur le plan politique euh, affaire bi yàqul ko dara bon léegi nag euh, am na aussi du politique rek mhm. du am na li nga xam ne jikko loolu dafa war a xeex aussi pour wane nit ñi luñ koy tuumaale amul ndax de sénégalais aussi ay nit yi bugg nañu politique lool bëgg nañu euh, soutenir ki nga xam ne day xeex euh, pour askan bi mais wante boo jubul mm. euh, duñ la jox confiance bi nga bugg surtout buñ lay tudd ci yenn yi. voilà surtout ci valeur culturelle valeur sociale valeur aussi respect jigéen. Sénégal yi fonk nañu lool bu ñu xoolee Sénégal aussi ni mu tëddee jigéen ñi pratiquement ñooy majoritaire au Sénégal donc ay valeur moom euh, defe naa war na ci bàyyi xel bu baax euh, pour wane wane boppam nit ñi am confiance euh, à sa dignité à sa dignité parce que Sénégalais moom su leen wóoree ne que yow setoo amoo valeur valeur mais duñu la dënk réew mm. Euh, loolu daf ci war a bàyyi xel. Mm. xeexu politique d'opinion bi moom. Mm. am na am na ci ndam. maintenant sur la question des valeurs. il faut aussi que mu communiquer beaucoup beaucoup sur les ci ci wàllum euh, valeur. Mhm. alors ki ñu denk réew mi war a communiquer ëllëg ak askan wi déclaration bi mu tàmm def at mu jot mu naa euh, ñu naan ko discours à la nation mu wax ko def nag ci jamonoy concert de casserole bi waaye ci lan la président Macky Sall war a euh, tënk discours am ba xëy na defaraat digganteem ak askan wi ak opposition bi ak société civile bi rapidement. waaw pour pour mu toll ni bon ñëpp ñuy xaar discours wante euh, ni nga ko waxee euh, defe naa euh, discours à la nation dafa war a dafa war a tenir compte contexte que contexte bi mooy tey jii man ci li ma xalaat daal président warul toog ci média yi pour wax def naa lii def naa lii def def naa lii discours boobu dafa sàppi nit ñi hmm. am na ñi nga xam ne ànd nañ ci loolu lu muy wax liggéey na loolu lu baax la wala lu bon la mais discours à la nation waratul euh, am place bu rëy rëy pour ne pour bàkku def bilan de bilan bilan bi réalisation euh, warul à mon avis de à mon avis na wax ak sénégalais yi problème yi nga xam ne ñu ngi ñuy jàmp bonne gouvernance euh, gestion des deniers publics euh, gestion du pétrole du gaz ak suñu ëllëg defe naa su su waxee ak sénégalais yi seen nekkin ak li mu yaakaar dina ko def fii ak at bon beneen euh, ñi nga xam ne aussi ñu ngi xaar ci président mooy présidentielle deux mille dix est-ce que mm. dina bokk est-ce que du bokk mm. na wax li nga xam ne mën na tey réew mi parce que ñu ngi dem ci élection deux mille vingt quatre mm. mais boo xoolee bu baax a baax deux mille vingt mooy élection mooy mooy campagne ça va être une année électorale mm-hmm. dina nekk une année sociale ça va être une année de tension mm-hmm. loolu président daf ko war a sóoraale mu am li nga xam ne daal euh, dina ko teg mm-hmm. ci sénégalais yi déglu sénégalais yi wax ak ñoom ci seen nekkin ak li mu fas yéene def fii euh, fii ak at donc euh, mu bañ a daal dugg ci affaire euh, bilan réalisation mais wàllum aussi démocratie liberté waaw nit ñi dañu soxla tey jii président euh, euh, rassurer leen ci démocratie respect des libertés yaa ngi doon wax ne société civile bi par exemple bon société civile dafa war a dafa bokk ci ci réew mm-hmm. il faut mu gunge leen mu wane société civile bi que moom nekkul fii pour xeex société civile mm-hmm. que que naa daal su defee discours bi nga xam ne ànd na ak jamono ak contexte bi bon loolu la ñu xaar ci ci ci président. Mhm. jërëjëf doyen Mamadou Sy Albert amoon nañu mbégte dalal la ci matinalu Rewmi FM tey gërëm la bu baax a baax ci disponibilité bi. ah maa ngi lay fay bu baax a baax di nuyu waa kër gi yëpp. jërëjëf doyen jërëjëf.